sëñ bi Momar Ndao ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. yow yaa jiite ASCOSEN di kuréel gi nga xamante ne mooy taxaw di aar ak ak yeleefu way jëfandiku yi ci Sénégal gannaaw bañ fi jëlee état de catastrophe sanitaire bi nga xamante ne dund nañ ko lu yàgg ci Sénégal ñu nemmeeku ni njëg yi nga xamante ne dafa yokkoon ndax restriction yi ko waraloon ba léegi ña fa ñu nekkoon lu waral loolu man appréciation nga ci am. waaw man appréciation bi ma ci am rek mooy lu ci bari la. spéculation nag mooy ci tubaab li nga xamante ni bii mooy yenn commercant yi nga xam ne dañoo bëggee bëggee bëggee ba mel ni man. dañuy yokk prix yi ngir jéem a am lu gën a bari li nga xamante ne bii moom moom moom lañ war a am. te kuy def commerce da nga war a ragal yàlla ndaxte euh, bénéfice wax nañ ko waaye nag boo buggee yokk sa bénéfice bi ba lor jàmbur loolu benn dina nangu ko. Euh, li ci nekk bu fekkee situation yi dafa am. ministère bi nga xam ne moom la ñuy wax ministère du commerce moom moo war a jóg def liggéeyam. waaye dafa mel ni ministère bi daal dafay dafay xaw a daal man daal doy na war daal dafay dafay dafay tendeefal daal xam naa ne ci loo xam ne lu ñu war a faj la loo xam ne loo xam lu am solo la mm-hmm. ndaxte eh, eh, eh, réew dañ ko organiser te bu fekkee ne lu waay def lu waay neex def rek du sotti mm-hmm. te affaire moom daanaka lu waay neex def moo fi nekk actuellement mm-hmm. ñu gis ni tamit saa yu koor gi jibee njëg yu denrée yi mooy kanam dund gi dafay gën di yokk kon ay fan yu néew a ci des ngir ñu daal di dugg ci weerub koor lu nu mel xëy na dañu koy jànkontelaat yan pexe nga gis ni war nañ ko mën a def bu ko defee askan wi bañ a dund lu ñu mel saa yu koor ji jibee waaw xam nga say gi jibee li daan am coow toujours mooy ne prix yi dañ ko daan yokk mais li ko daan neutraliser mooy depuis bi fii supermarché yi ñëwee ndax supermarché yi dañuy jaay prix prix normal donc même bu koor gi ñëwee fa la ñi daan daw di dem jëndi ba tax nit ñi yokk yi daan bëgg a yokk loolu mën a am comme actuellement supermarché yi dañoo am jafe-jafe mm-hmm. taxawaay bi nga xam ne moom la état à travers ministère bi nga xam ne mooy ministère du commerce boobu dafa war a gën a am solo mais waruñ fee nekk rek di seetaan li nga xamante ne bii moom lii raam ci ñag bi la jëm te ñu ngi jublu ci weeru bi. Ah, catholique itam ñu ngay yëglu ndax euh, li nga xamante ne moom la ñuy waajal ngalax yi ak ñu gis ni tamit euh, njëgu lu cay dem yëpp euh, yokku na ndax def ngeen constat bi yéen. waaw loolu moom def nañ constat bi ndax xam nga li nga xam ne moom mooy suukar boo koy xool sukar dafa nekk prix boo xam ni dañ ko administré prix yi nga xam ne moom la war a jar ak prix yi nga xam ne moom la ko boutique di jaay lu ci bari dafa waroo hmm. li daan indi nag euh, atténuation mooy supermarché yi nga xam ne boobu temps ñu ngi ubbi ñoom ñëpp bu ko defee njëg yi ñoom en général njëgi suukar yeeg yooyu dañ koy respecté bu baax a baax donc ce qui fait que su fi suñ suñ fi nekkulee rek immédiatement rek da ngay yëg yenn yenn prix yi nga xamante ne bi mooy prix yi muy yëg. kon ci gàttal daal euh, li ñu caxat caxatee yenn euh, supermarché yi am na jeexital ci njëgu euh, consommation bi. waaw am na njeexital bu rëy parce que dafa am produit yoo xam ne dañ koy wax produit administré nga xam ne yooyu état bi day wax lii lay jar am produit yoo xam ne administré ko nga xam ne lu waay neex jaay hmm. mais yooyu nag boo demee ci supermarché yi mu gën a yomb da koy da ngay romb ku ko jaay seer rek nga romb ko fa dem ci supermarché yi hmm. donc loolu moo nekkoon avantage yi te donc fekkee nag supermarché am nañ jafe-jafe xam nga immédiatement donc day répercuté wu ci njëg yooyu ñu wax nag ci li ñuy béyee wala lu ñuy defaree fii ci réew mi consommer local bëri lool li nga produit yi tukkee fii ñu ngi koy am rawatina yi jóge ci mbay mi ah, loolu lan nga jàpp ni moo ko waral fan la jafe-jafe bi nekk. waaw jafe-jafe bi fi mu nekk mooy euh, néew doole yoo xam ne moom la euh, producteurs yi néew doole euh, te état bi lim leen war a jàppale jàppale ko te état bi tam ni mu war a jàppale consommateurs yi tam dafa des. Hmm. ndax booy xool par exemple lu mel ni qualité bi ñuy wax. xam nga bu fekkee ne da nga am sa soble nga war ko bàyyi mu wow koŋ nga doog ko jaay nga teel ko euh, jaay te fekk ne wowagul koŋ boo koy togg rek day seey te bu seeyee dooto euh, loolu bokk na ci manque de qualité produit bi. Mhm. ko defee euh, day tax population yi duñ sawar ci jënd ko ñàkk taxee tax ñu di ko jënd. Mhm. beneen bi mooy booy xool li nga xamante ne bi moom moo jëm ci. lu mel ni ceeb bi. Mhm. ceebu riz de la vallée sénégalais bëgg nañ ko sax euh, mais moo gën a seer donc que li nga xam ne moom la ñuy importer loolu tam day indi jafe-jafe mhm. beneen bi tam mooy li jëm ci qualité bi bu fekkee ceeb bi niñ ko calibré maanaam pepp yi ñuy boole tolloowul yi sew yi xaw a digg doomu soo dugalee loolu soo ko kii ko sóor ko ci sa cin di togg. yu sew yi ñooy mujjee ñor yu yu yu yu digg doomu yi hmm. su ko defee da ngay gis ceeb bi lii xaw a ñor lii donc su fekkee doom yi tolloowul hmm. donc loolu day indi ay jafe-jafe euh, beneen bi itam bi nga xam ne moom moo ci nekk mooy booy xool tey jii euh, euh, njëg yi nga xamante ne bi moom la ñuy war a gérer li nga xam ne mooy gàncax googu dangay gis ñuy wax prix bi nga xam ne moom la ko ba baykat bi war a jaayee waaye prix bi ko war a jaayee consommateur bi doo ko wax kon kay loolu boo ko defee commerçant bi ci boppam ngay ngay tax ak intermédiaire yi ñoom la seen poste du duuf hmm. ndax lu leen neex jaayee ko consommateur bi te liñ koy jëndee dañ leen ko fixel donc loolu yëpp liggéey boo xam ne ministère du commerce ko war a def te def ko. ci wàllub qualité boobu lan la ñu mën a def ba tey ji euh, sénégalais bi mën a taamu produit bu ñu euh, defaree wala bu ñu bayee fii ci réew mi. waaw sénégalais yi sax am na produit yu bari yu ñu defaree fii ci réew mi yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy taamu boo xoolee tey boisson yi bu njëkk. Hmm. boisson yi ñu daan jëndee ci jaaykati boisson yi rek la doon doon mais léegi gis nga ne daanaka jus yi léegi mu ngi jar bu baax a baax a baax. Hmm. ndax problème qualité bi amul foofu noonu. Euh, boo xoolee li nga xamante ne bi nag moom mooy euh, li ñu war a def pour jàppale béykat yi mooy fexe bañ ñoom ñu am possibilité euh, au niveau financier pour ñu mun a def li nga xamante ne bi moom mooy euh, maanaam euh, fi nga xam ne foofu la ñuy conserver seen produit ak ñi nga xam ne moom lañ koy préparer pour que mu mu gën a mun a euh, yemb daal maanaam tey ji bu fekkee na ngaa bëgg jël lu mel ni soble bi nga jël soble bi nga ne da nga koo bëgg a bay nga ko ba pare da ko war weer condition weer yi da ko war a toppatoo yooyu yëpp day laaj ay ay jumtuwaay hmm. yoo xam ne il faut que tam ñuy dimbali ci ñi nga xam ne ñooy baykat yi ñoom itam loolu euh, produit bi qualité bi gën a amélioré. ci mm-hmm. li nga xam ne moo jëm ceeb bi gis nañ ne am na fi ay rizerie yoo xam ne ñu ngi jël ceeb bi di ko defar no noo xamante ne bii nu mu ci ayib la mhm. waaye il faut ñuy dolli leen yokk leen pour que ceeb bi mën fee gën a ñëw te itam njëg yi gën a wàcc ñu wax ci wàllu ndox mi ndax kon ay eh, bis yi ñu génn rek lañ doon màggal ba bëccëg bi àdduna wërngal këpp jagleel eh, lépp lu jëm ci ndox ak ñu koy jëfandikoo waaye Sénégal bëri na ay complainte ci wàllu qualité gi lu mooy sax qualité gi dog-dog ñuy nemmeeku ci wàllu distribution bi gi lan moo waral ba léegi Sénégalais mënuñu am ndox mu sell te di ñëw ci waxtu wu ne waaw xam nga euh, ndox mu sell dafa am nu ko organisation mondiale de la santé maanaam kuréel gi nga xam ne moo boo dajale. Hmm. ci àddina bi lépp lu jëm ci wér gu yaram nu ko nu mu ko waxee. Hmm. dafa wax ndox moo xam ne nit mun na ko naan nii la war a mel. mel nii mel nii mel nii. Hmm. waaye ndox mun na koo mel ba pare te boo ko xoolee mu ñaaw ci yow. donc léegi ñun Sénégal nit ñi romb nañ fi mu nekk nii euh, di laaj ndox mu ndox mu sell ñu ngi laaj ndox moo xam ne ah. daf leen ay neex. qualité maanaam mooy couleur bi. waaw xam nga léegi léegi nga gis ndox moo xam ne nit mën na ko naan ba pare te mu xaw a am couleur. ndox itam mën na leer nañ nañ nañ nit ki laan ko naan ko léegi faatu ndax lii reyaate lu di lu bët mën a gis kon léegi ñun même bu fekkee ndox mi nit mun na ko naan maanaam potable na respecté na lii OMS su xawee xal rek day xam maanaam mën naa ko waxee ne day tey si xel daal loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax waaye booy xool ndox bokk na ci produit yi nga xam ne ñoom moom lañ gën a contrôlé dinañ ko contrôlé ay hmm. ay onze mille points de ah, onze mille contrôle par par année dinañ koy def hmm. donc euh, pour mu sell rek donc waaye nag wax dëgg yàlla euh, léegi-léeg tam mu am ay couleur yoo xam ne daal waaw xel du ko nangu waaw beneen bi itam mooy dañuy gis ne am na quartier yoo xam ne ba léegi amaguñ ndox comme ni ñu ngi ndox te xaaju pour que ndox mi ñëw ay trois heures du et cetera te loolu wax dëgg yàlla nekkut lu jaadu ci ñu nekk fii ci deux mille vingt et un nekk réew moo xam ne dañoo bëgg a émergent hmm. loolu mooy problème bi hmm. loolu nag li ko waral mooy ni nga xam ne moom la ñuy xaymaa li manqué ci ndox toujours day faussé parce que tey ji boo ne cinquante sept mille mètres cube d'eau moo manqué te ay at a ngi nii loolu la ñuy wax cinquante sept mille mètres cube yooyu day changé ndax nit ñi dañuy yokk mm-hmm. léegi nag su fekkee da nga ko calculer ci nit ñi ni ñuy yokkee rek nga ne ah amoon na ñoo xam ne amuñu woon léegi am nañ ndox bu boobaa ñooñu suñu amee pour ñu am ndox il faut ma indil cinquante sept mille mètres cubes mais da ngaa fàtte ne ñi nga xam ne ñi ngi doon dund ci ndox moo xam ne dafa xaw a faible maanaam pression bi amul doole mm-hmm. su fekkee te ndox ñëw na rek seen consommation day yokk deux ba trois fois mm-hmm. te loolu il faut nga xayma ko boole ko ci li nga xam ne moo manqué su ko defee ci nga xaw a jege eh, lu mais bu fekkente ne bi tey ji yow yaa ngi yaa ngi fay dix mille francs ndox nga xam ne sa pression dafa faible suñ la yokkalee sa pression rek ndox mi di ñëw bu baax rek facilement sa facture mun na dem ba ay vingt mille trente mille donc loolu tam bokk na si loo xam ne mun na mun na mun mun lu ñu war a calculer la kon bu boobaa déficit bi niñ koy calculer lañ war a xoolaat ndax suñ ko xoolaatewul niñ ko war a xoolee rek Euh, dafay indi jafe-jafe yoo xam ne après day day tax ba soo tabaxee usine balaa usine bi am dox sax euh, demande bi romb ko ñu gis tamit ci ndox moomu ba fi euh, Sen'Eau ñëwee ñu yaakaaroon ni yëfi dina am ab tànn waaye bëri na ñi jàpp ni euh, njëg li euh, dafa gën a yokk ndax nemmeeku boobu ngeen def waa seen waaw njëg yi moom yokkul officiellement. waaye ñun liñ jot ci ay kalaame ci ñu kalaame Sen'Eau ne seen facture yi dafa yokk. bari na lool te fekk na tarif yi yokkul su fekkee tarif yi yokkul nag facture yi di yokk ça veut dire que problème am na ndax soit est-ce que du dañoo am problème ci li nga xam ne moom mooy relève bi maanaam releveur bi di bind ko neex wala mu nekk ne ñoom seen système bi ñuy bindee calcul yi ñuy calculer ndax amul njuumte en tout cas daal ñun daal gis nañ ne daal problème am na boo xam ne il faut que ñoo waa seen wax ñu ci lu leer. ñu wax ci beneen mbir bi ñu nemmeeku tamit ab yokkute muy njëgub lépp luy jëm ci wàllub tabax ciment affaire ak beton bi ay weer a ngi nii ñi ñi di ko ŋaññ lu waral bi la yokkute ndax am wax nañ leen fan lañ ko teg. Mm, man de ci suma gis-gis li nga xam ne moom la cimenterie yi def teguñ ko ci dara. ndax depuis des années ngi nii ëpp na juróomi at ci ginnaaw chaque année ñu ne dañuy yokk chaque année ñu ne dañuy yokk chaque année ñu ne loolu moom mënut a nekk ndax Sénégal dafa jël di tabax ville entière jam ñaajo fii ñetti cimenterie yi am fi ba pare ñu ne chaque fois dañuy yokk prix ciment bi man daal vraiment loolu loolu moom man man comprendre ma ko deuxièmement ci biir loolu yëpp coow loolu ngay dégg yëpp ministère bi nga xam ne moo war a àtte mbir mi dafa croiser les daanaka dafa farak cimenterie yi parce que day justifier sax cimenterie yi li tax ñu war a yokk te ñun jàpp nañ la loolu jaaduwul donc daal loolu bokk na ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñun daal ba léegi d'accord yi ci ku wax ciment wala fer sa xel dem ci wàllub dëkkuwaay ñu gis ni Sénégal bañ fi euh, defee loi wate ko ci wàllub wàññi teg location bi def na juróom-ñaari a ngi indi ci ay jafe-jafe moo ëpp lu mu saafara lan moo waral loolu ba léegi fan ngeen jàpp ni problème bi ci la. waaw xam nga jafe-jafe bi nag li nga xam ne moom moo ko moo ko waral dëgg dëgg dëgg dëgg mooy néew joole yi ñi nit ñi néew doole. ndax ñi nga xam ne nekkoon nañ ci kër te génnuñ kër ga. dañ leen appliqué bees bi ba léegi ñooñu ñu ngi ci jàmm mais ñi gën a am jafe-jafe mooy ñi nga xam ne yow da ngaa dëkkoon fenn mënagoo mënatoo fay ba génn fa dem feneen foofu ngay demaat ñu yi bokk na ci jafe-jafe yi am na tam ñoo xam ne sax fañ nekkoon dañ leen a wàññi loon ñu dem ba ci digg bi bayeer yi bëgg a yokk yooyu yëpp ay jafe-jafe la mais li koy waral li ci gën a li gën a métti ci affaire bi mooy su fekkee da ngaa néew doole yow sa àq ak sa ko laaj parce que dafa lay leer ne danga ngay am retard te boo amee retard un mois rek ki nga xam ne mooy borom borom kër gi yoon may na ko pour que moom mu commencé def procédure pour mun laa génnee bu fekkee fayoo ko un mois su ko defee yow comme xam nga loolu yow moom bu tegee dara loo xam teg na loo xam ne du yoon yow da ci ciy ànd ak moom di noppi ba pare bu ñu waxee nga naan waaw loi bi baaxut loi bi baaxut mais loi may na la nga dëkk ci kër sax dix ans wala vingt wala cent ans xëy benn naa ne kii li dafa soo demee tribunal tribunal day jël benn euh, expert expert bi calculer prix loyer bi hmm. su fekkee gis na ni kii lim la doon luyee mi ngi la doon luyee cent cinquante mille te cent mille la la waroon a luyee da lay rembourser cinquante mille cinquante mille yu mu jëloon ci yow yëpp te moom ay kasoom xaj na ci Mhm. kon donc yoon may na protection total ki nga xamante ne bi moom mooy euh, locataire bi waaye nag locataire boo xam ne du régulier wul li nga xam ne mooy fam defu du laaj àqam day noppi su noppee nag léegi ba pare affaire bi day métti ci moom su ko defee mu naan waaw loi bi appliqué wuñ ko nangam nangam mais loi bi moom képp koo xam ne yaa ngi fay normal ameeloo ah, sa sa kii dara amul dara lu mun ci yow waaw donc loolu loolu nekk na loo xam ne yaa ngi dugal procédure kon ngir jëlee la fa. boo nekkee tamit ay at diir euh, ci ab kër mu am benn weer bi nga xamante ne am nga rek jafe ndax yoon may na tamit ñu daal di lay euh, fexe ba génne la ci. waaw waaw yoon may na ko loolooy problème bi nag yoon dafa metti waaye mooy yoon yoon dafa wax ne nga dëkk fa cent ans wala nga dëkk fa un jour wala nga dëkk fa mais daal su fin du jotee nga war a fay fayloo kii borom kër gi am na droit. dem yónni la huissier huissier bi ne kat nee amel nga ko un mois ndax fay nga ko nga ne déedéet ñu ne mu la boo ko fayul fii ak trente jours danaa la woo tribunal boo demee tribunal rek dañ lay expulsé waaw ñu ci jafe-jafe yooyu taxoon na ba état bi ci weer yi wees mu xam le ni kon dina indi ay coppite maanaam réforme ci boobule loi nga xamante ne 2014 lañ ko voté ba xam yéen a ngi am écho euh, li tukkee ci coppite yooyu ñuy xaar. waaw man nag réforme boobu dégg naa ko rek ci presse bi ñu di ko wax nii waaye gisaguma projet bi gisaguma ci dara mais daal lii am ba am mooy ak loi boo munti sek ki nga xamante ne bii moom mooy locataire bi su fekkee moom nanguwuta kalaame problème toujours ci lay dëkk su dee kii locataire bi moom ci boppam dafa néew doole ba tax du kalaame. Hmm. problème toujours ci lay dëkk. Hmm. kon li koy régler définitivement mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy locataires yi ñuy kalaame. Hmm. mais locataire boo xamante ne bi dangay ngay kalaame. ah yooyu waroo amel sa borom kër te nag ñàkk ameel sa borom kër loolu lu lu lu jafe la parce que nit ñu bari seen loxo jotu seen ginnaaw waaw. yow yaay njiital Ascosen sëñ bi Momar Ndao lay gërëm bu baax a baax. ngi leen di bu baax.